li xel nangu wut. Hmm. mooy que ne Balla Gaye vingt vingt millions lañ ko fay ci combat bi. Hmm. Tapha hmm. c'est que xam nga ay questionnement la yoo xam ne il faut que CNG trouver la réponse il faut mu régler ko. kon bu fekkee ne dagg nañ ko dix pour cent. muy un million. taxi ñoo ko prévoir et puis en fait. dañoo jël li gën tuuti ci lañ ko doon dagg dañ ne au moins dix pour cent. au moins dix pour cent. moo nañ ko dagg cinquante pour cent. mais mais président. tool bari mais réglement moo ñu ko. mais kaddu kaddu tamit VIP yëpp ñu àndandoo ñoom ñëpp ñu kaas. ci plateau télévision am lu leen naqari. loolu naka ngeen ci. naka ngeen ci tuuti rek. waaw naka ngeen ci réagir. dama ci bëggoon sànni tuuti rek. ndax hmm. ñun ñii ñëpp xamante na hmm. man mënu ma nangu. Hmm. ñuy dagg mbëri. saison lëm. combat préliminaire yi mhm. kenn wax mhm. ñu xëy benn jour ñu dagg mbër mu mag mbër yooyu daal di victime mais est-ce lu mu bari moo tax boole famille yëpp a ah, déglu rek ah. sa salon mag su wax na ko léegi mhm. salon ni quatrième toll la waaye dagg boobu niñ ko koy daggee moom pour cent dix pour cent noonu la ñu koy daggee yaawu jaal di pour cent ci quatrième pourtant loolu mi ngi fi woon ñun bu ñu sañoon ñun ménager yi ñooy ñoo kenn locuteur mbër kenn du dagg mbër parce que mhm. boo leen daggee ñu mel ni man mbokk mhm. boo daggee sama mbër lu bari sax dina feeñ ci sama pourcentage mhm. kon bu ma sañoon du ñu ko dagg mais xam nga mais léegi bu fekkee nag mbër mi ñun ñoo taxaw ñun ñoo taxaw dem ci président mii ak waa CNG ne ñun dañu bëgg ngeen wàññi butéel yii ñu mbër yi di dugal loolu ménager yi ñoo ko plaidé wu ñu ñun dañu bëgg mbër mi pare ñëw dugg ci biir géew bi mm. kenn dootuñu sonal bi ñu ko mm. commencé di def mm. mais amatuñu jafe-jafe wala jafe-jafe bi wàññeeku na bu baax a baax a baax a baax léegi nag ñun duñu cautionné loo xamante ni day sonal mbër parce que tey mbër mi bu yéegee miir cëppeelu mbër yu ndaw yëpp dinañu yéeg miir cëppeelu mm-hmm. ndax gis ngeen Modou loo bi mu ngemboo ngemb lu son lu am weer mm-hmm. xale yëpp a ngi ngemboo ngemb lu son lu am lu weer Mm. Siteu gis nga bi mu commencé def ay feccam yooyu. Mm. ko yëpp noonu la ñuy fecc. Mm-hmm. Bombardier ba mu dee dëppoo leket. ñoom ni mm-hmm. kon ñoom ñoo war a wone. Mm-hmm. premier acte bi. pour lépp mën a tegu si yoon. parce que dama ne làmb bu ñu ko assainirul. ñun fan la ñu jëm moom. i faut ñu assainir làmb ji. naka lañ koy assainir lu ci nekk nekk règlement. mais Maxime mi na nañu dem France. ba ñu fa yeggeew tubaab yi lu ñu wax. seen temps làmb ji. ñun xamuñu ko. lii da mm-hmm. ngeen war a xam heure bu ngeen di commencé ak heure bu mu war a tas. Mm-hmm. sinon kenn mënu ko jaay ci Europe bi. Mm-hmm. parce que bi ngeen commencé ba léegi déjà vingt heures mi ngi jot nangam nangam. tey jii est-ce que loolu ñu tubaab yi doon wax. mi ngi dugaat ci réew mi ba CNG ngi commencé di assainir temps di ko wàññiwaat. ba ma formuler sama question rek il faut ñu comprendre man ni ma fi toogee. toog essayé dama dama remplacer di poser ay questions. allez waaw am président du jànjee ko moom moo féete amateur yëpp mais man maa koy hmm. indil question amateur de la diaspora yi hmm. ñoom li leen jaaxal mooy président itam mbooloo bi VIP yi def toogandoo toog mooy tey quelque part am na lu leen naqari ba yenn kàddu yu tàng jóg foofu noonu naka la ko CNG percevoir est-ce que CNG dafa ne man je me remets en question wala lan la ko CNG percevoir comme dégg nañ kàddu Balla Gaye 2 dem ba ne sax CNG ay sàcc lañu nga baal ma ci kàddu bi naka nga ko gisee. ah c'est dommage. C'est dommage parce que c'est dommage pour plusieurs raisons. La première que mu jógee d'abord ci gémmiñu sama doomu xarit Double Less yàlla na ko yàlla yërëm je désolé ndaxte Double amoon lu ñu seqoon ndaxte chaque fois Kaolack daf doon escale ñu taxaw waxtaan ci bopp Sénélec waxtaan lu bëri moo tax bi mu gaañoo bokk naa ci ñi ànd ak Matar ba dem jaale ji mhm. moom Balla moo ñu recevoir un terme mu jóg wax mu jóge ci làmmiñam keneen waxoon ko moom mu wax ci leneen sax moom mu gënul mais bref xam nga wax la dañ ma dagg lii dañ ma dagg laa et cetera yooyu waa CNG ay sàcc lañ non sàccuñu règlement lañ fi nekkal moom la ñu doxal moom lañ ko appliqué xam nga alal moo sax ci ci xol xëj na ci biir développement mu wax ko mais li wax c'est très grave tout de même c'est très grave waa CNG ay kilifa lañ dañoo am njaboot te également waa CNG aussi xam nañ ne ab mission lañ am am ay charge te dañ koy teg fi ñu ko war a teg kon euh, bu yaram kenn tàng rek ci biir développement am rek ñu ne nangam ba yegg ci extrémité bi il a trop poussé le bouchon c'est qu'il ne euh, xam nga nag CNG ay kilifa ñoo fa nekk je répète je me répète quand même moo tax ba ba léegi kit on m'appelle de partout pour réaction réaction réaction émission bi sax moo tax ma wax ci mi naru ma ci woon wax Balla suñu doom la suñu jaabaat la c'est un champion avéré euh, bokk na ci seetu la yi làmb am làmb Sénégal boo ko programmé lamb neex ndaxte bu bu duggee bu tuusee mu neex bu feccee mu neex vraiment bu bëree mu neex donc kooku c'est un champion kon euh, xaar nañ ko ci ay exploit ak ay ndam yu baree bare yoo xam ne ñu ngi koy ñaanal quand mais mais yenn wax yi xaaruñ ko ci moom mais nag xam nga rek euh, li ñuy wax rek dura lex sed lex la loi est dure mais reste la loi yoon ak nu munti mel rek yoon lay doon li nga xam ne règlement moo ko tëral dañ ko seet bi xam lan la ci règlement bi foofu. ko defee ci wax yooyu. ci wax bi mu wax. su fekkee am na lu ci règlement bi wax rek ñu tënk ci règlement bi xam nga li ñuy wax yëpp naa règlement xam nga dafa naan caatu yaraax. règlement waxul ne ñu sanctionné ko ci dara. li ñu wax rek mooy que ne disqualifié nañ ko dañ ko disqualifié dañ ko war a sanctionné ci loolu. fa la ñuy ay waay fii xel sa xol ah original. original 100% pur jus de fruits. Sénégal Café kan gi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw local la ñun ñoo ko moom. di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommer ko.